finalement euh, ku ñu déjà mhm. muy euh, Ousmane Sonko nek, euh, koo xam dafa jege moom mooy le leader du PASTEF nek, koo xam ni également moom moo présenté qui dit le président Bassirou Diomaye Faye mu daal nek, candidat tey mom la ñu premier ministre déjà ñu bëri ñu ngi xaar la liste du gouvernement qui va être certainement proclamée dans les prochaines heures comme nous. Euh, le premier ministre Ousmane Sonko waxé mais euh, ñu bari ñu ngi xaar aussi euh, mu doon gouvernement bo xamanteni euh, peut-être day nekk gouvernement bu restreint mais qui se penche sur les urgences tay urgence yoy yow nga gis gouvernement bi ci yan ak yan ak yan la war a mëna def focus ci ñetti yi nga xamanteni déjà mom lañ dëgmal. Déjà, il faut que nous revenions sur l'exception que constitue tey Bassirou président de la République Ousmane Sonko premier ministre moi je pense que c'est une excellente chose parce que nous, ñaar et particulièrement Ousmane Sonko nous juddal seen projet di ci dox di ci dox ba mu yegg projet, nous avons kon euh, à mon avis mm-hmm. pour mener les rênes euh, de la machine bi nga xamee ni moo war résolument vers la réalisation de ce projet là et donc c'est une bonne stratégie que Ousmane Sonko soit premier ministre c'est très intelligent mais mhm. c'est très associé parce que au moins dina mën verrouiller parce que ñu bari ñu ñu ngi bon le fait que Ousmane Sonko jege ko de trop mën nako euh, empêcher peut-être mu baña def bon comme niko ko ñenn ñi xalaatee amna également comme li nga wax nañ c'est une très bonne idée Que Ousmane Sonko soit près euh, de de Bassirou Diomaye Faye aussi. bien sûr parce que euh, les gens vont voir de l'ingérence partout lu mu fay def lu muy a maintenant c'est dans le cadre. Mhm. des règles Il y a ni moom qui administrer réew si la jëlee une posture boo mhm. verrouiller ce projet la souche de base c'est ce xamee ni fait, leen tax ñu des enrichir avec les avantages yi nga de la part des citoyens de la part d'acteurs politiques de la part d'acteurs de la société civile ou du secteur économique pour nous mener à àndandoo dox jëm mm-hmm. extrêmement important pour nous mener à am alors maintenant si ñu le nii moi mooy lan mooy ay di lan moy une priorité mm-hmm. je pense que les li ñu dund ci fan yi passé ak at yi passé wane nañu ni première société premier souci bi mooy nan la xettalé sénégalais bi si boppam parce que li wér ba wóor moy on a un million cinq cent mille familles qui sont mm-hmm. dans l'extrême indigence mm-hmm. te ñooñu wolof néna saaku bu deful dara du taxaw mm-hmm. donc il faut densifier à mon avis damay joxe sama xalat parce que je ne suis ni le président ni le premier ministre et c'est un acteur politique rek nga invité donc day joxe librement limu xalat xalaat li ma xalaat daal ni fofu tamit zone de priorité la bo xamé ni gestu nit ñi parce que buñu naxanté wulé xam nañu ni digënté bi liggéey bi di tambali ba résultat yi commencé génn du lu yomb mm-hmm. du du la du gannaaw ëllëg la donc d'ici là il faut que ñu densifier le tissu bi nga xamé ni moy yok le phénomène de la solidarité nationale de l'aide aux démunis taxawu famille yi ba kër yi am fu ñu wéeru am fu ñu taxaw mm-hmm. muy benn mm-hmm. ñaareel ba it nga góor góorgóorlu lijjanti ba les aspects sécuritaires yi nga xamee ni mm-hmm. moo jëm ci jëmmi doomu aadama yi seen deret mm-hmm. jëm ci li nga xam ne mooy alal ji ñu moomal seen bopp jëm ci mm-hmm. li nga xam ne mooy seen orma yi bopp maanaam seen seen der bi ñuy yàq à gauche et à droite ñu góorgóorlu ba aspect yooyu tamit am ci yi taxoon bërki démb ak bërkaati démb ngi doon xeex muy wàllu liberté wàllu démocratie wàllu état de droit wàllu équité yooyu doon ay réalité yooyu tamit ci biir priorité yu dul jeex yi def naa ni dëkkuwaay tamit war nañ ko cee xool. Mhm. ndax tey jii ci biir Ndakaaru gi calvaire la fi. Mhm. on a environ trois cent logements en déficit boo ko taawee jëm 2029 ça va être cinq cent logements. Mhm. au minimum te loolu aussi mi ngi peser lourdement. ci capacité borom kër yi pour ñu mën a assumer seen bopp. je pense que ni loolu aussi secteur la jëm ci li nga xamee moy mooy xalé xale yi discours président de la république ñëw na ci une mm-hmm. éducation une formation ak sen emploi mm-hmm. ñaareel ba gour gour ba nga xamee ne lépp loo xam dafa jëm ci walu guerre ak corruption ak yaq gi ñuy yaq corruption mom insister na ci lu bari nga ne clé de voûte bi nim mu wéré ni ji mm-hmm. mënu ñoo am